asalaamaaleykum euh, fili nuyu naa la suba teel su ne saa yi ni ñu koy defee saa su ne bu ñu xëyee nuyu suñu mbokku jigéen ñi ci kër yi nuyu suñu mbokku jigéen ñi ci bureau yi nuyu suñu mbokku jigéen ñi ci marché yi comme ni ñu koy defee rek fii moom suñu marché la marché Kermel suñu dëkkandoo la ndax dëkkandoo jàmm ca ndax bés du ñàkk ñun suba suñu xëyee dañuy daagu di wër ci marché yi di xool suñu moroomu jigéen ñi li ñuy daan wanteel ci marché yi ndax jéeg moom bu ñu koy wax dëgg rek bu xëyee suba te dafa war aw yoonu marché ñu leen di ñaanal yeew ak jàmm ak yendoo ak te dañu bëgg ñu waxtaan lu am solo ci togg loo xam ne mënoo togg benn genre togg xanaa laax ak sommi ngay togg te du ci dem mais leneen loo togg lu ne mën nga ca biir maanaam soble façon bu ne nag am na ci ñu dugg tey ci biir marché bi seet suñu mbokku jaaykat yi suñu mbokku jigéen ñi ci marché la ci mën a waxal tey euh, ñu daje ñi nga xam ne ñooy suñuy xarit ñii ñoom ñoom mu ñoo ma dëkk ci marché bi ñoo ñàkk gise saa su ne sang bi nuyu naa la fay naa la nii rek xam nga ñun yéen suñu xarit bu ñu xëyee ñu nag yéen daje ci marché bi yéen ñuy jaay ñun ñooy jënd tey nag soble laa bëggoon nga waxal ma ci tuuti loo xam ci soble. Ah, soble fu mu toll dafa gën a yomb ah. soble surtout soble Sénégal moo gën a yomb ci soble fu mu toll nii. waa dama fi gis euh, ñaari façon soble bii mooy soble bu weex bi bii mooy soble bu bu xonq bi. parce que boo instant yi ñaar façon moo am parce que oignon bi importe bi boobu lañu ko arrêté. pour ñu mën a liggéey suñu soble bi léegi suñu soble bi ñaar qualité moo fi nekk oignon blanc ak oignon rouge mais vraiment macha allah prix bi seerut mu ngi dox normal. lu muy jar fi ne nii. waaw 250 200. kon importé bi ñëwatul. noo dañ ko arrêté fu mu toll nii parce que bu fi nekk ah, bu nekk fii baaxutul donc euh, on n'est pas censé apprendre pour ñu jaay client yi moo tax ñu bàyyi ko ñu liggéey suñu local bi quoi. waaw léeg-léeg jigéen ñi duñ ñëw di la laaj naan importé bi laa bëgg. ñu bari ñu laaj importé mais dañu la exiger pour ñu jël local parce que local bi ci développement la bokk il faut ñu def consommation local ci la bokk mais nag aussi euh, boo xoolee tamit euh, ñuy jaay les les grossistes ñu produit oignon local bu ñu demee ba arrêté tamit euh, importé importation bi nañu dem finalement yéegal prix boo xam ne la aussi c' est pas normal oignon local ñu béy ko fii demee le kilo à 400 là aussi rafetul ci ñun quoi dañ ko war a lo yombale gars ñu consommé ko pour mu gën a ñu jël suñu produit quoi moo gën quoi. waaye c'est ça aussi. waaw loolu moom kontaan naa ci torop torop amoon leen différence bi lan la oignon local bi ak oignon importé bi lan mooy différence. laa ñuy toog ñu ne oignon local dafa bëri ndox importation bi bëriwul ndox mais là moi je ne vois pas de différence même man damay cuisiner ah. dimanche damay simeeku dugg ci wàññi man ak sama jabar di toog normal may xool li soob la mooy lépp eh. mais je vois que man gisuma différence bi daal. yow daal gisoo différence. baax na baax na daal. man su ma sañoon ñu def consommé local moo ma gënaloon man. soble ci xeeti Amaryllidaceae la bokk légume la buy safal bëri itam lu moo faj lool soble ay xob yu bëre ñoo tegloo ba def doom di meññee ci garab goo xam ne nag paasewul 100 centimètres soble bëri na xeet am na yu weex yu jaune yu rouge mbaamu rose am ci wàllu forme yu sew yu gudd yu roo te dijj soble soo ko dee xolli thiosulfinate bi ci nekk mooy tax nag say bët di jooy moo tax itam mu am xet gi mi am soble lu mu gën a sew nag gën a gaaw a ñor waaye daggat ko di ko taaj mbaa nga denc ko lu yàgg baaxu ci loo dagg rekk toggal ci saa si soble mën nañ kaa denc diir bu yàgg dana wàññi suukar di tas lu mu deret yiy faj ko sidit léeg ci wàllu feem soo bëggee xolli soble te doo jooy xooj ko ci ndox walla nga ubbi robinet bi dékk ko ci suufam di ko xolli soble ngir soppi présentation biñ fi tàmm di def fii muy soos wala salade mën nga ko beñe li nga soxla mooy 100 grammes farine benn nen 90 millilitres meew xorom poobar jël soble bi nag dagg ko ay rondelles mélanger sa pâte daal di fëq diggu soble bi ndax nga am foo téye xooj ko ci pat bi siital ko daal di dugal ci diwlin bi saaf ba mu doore bon appétit. jërëjëf ummi jeeg ji kenn mereetu la. kon nag ñu dem xool suñu mbokku jigéen lan la ñu ciy defal tey ki soble. yaay li nga def chon de blanc. déedéet yëf yi mag rek te mu tàng. nga kon tàngoor nii ngay def. ba tey. waa léegi bu nag ñu dem xool suñu mbokku jigéen lan la ñu ciy defal tey ki soble. <laughs> yaay li nga def chon na de blanc. déedéet yëf yi mag rek te mu tàng. nga kon tàngoor nii ngay ba tey. waa léegi bu tàngee nga bëgg ma toggal lu simple ci soble noo ma koy defaree. soble nga wax de. rek rek soos kese. waaw wala leneen lan. loo mën a def rek. defar ba mu baax rek da ngay daggal sa soble rek ba mu baax nga jël sa vinaigrette jël sa tuuti citron jël sa jumbo def ci tuuti def ci moutarde nokk sa laaj ba mu mokk nga def ci oignon vert ak kaani salade. daal di koy def sauce def ci tuuti dawlin mbaa huile d'olive. daay wër boo paree koo koy jox. ah. koo koy yegg defar ba mu baax rek defal ku baax si gor si. <laughs>